asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nu bokk ak diina ji nu bokk tax ñuy faral di yëkkati suñuy kàddu ñu fas yéene ñëw ci waxtaan ñetteel waxtaan ak yéen fan xam ne mooy rajab di weer wi nga xam ne moom la suñu boroom wàcce woon julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko jullit ñëpp ñuy dellu rek di fàttali li xam ni moom mooy julli ni ko jullit bi war a bàyyee xel bu tàmbalee ci julli gi waaye tamit di ci def xolam mooy tax jëmm ji ci boppam nangu ko ni nga xam ne noonu la ware mbokk yi niñ leen ko waxe woon sunu borom subhanahu wa taala bëgg gi mu bëgg doomu aadama ak tànn gi mu ko tànn ak ni mu ko tànnee mu gënal ko ci mbindeef yépp waaye jël lépp lu mu bind rek jagleel ko doomu aadama loolu rek doyoon na sëkk nit ki di ci sant borom subhaanahu wa taala waaye julli ñi nga xam ne ñi ngi koy defit ak noo ko mën a defee amul lenn lu muy jëriñ suñu borom subhaanahu wa taala waaye yow lay jëriñ yow mi nga xam ne yaa ngi koy def ci gën ngaa rafeti anam boo ko deful it amul lu muy wàññi subhanahu wa taala waaye yow lay wàññi yow mi nga xam ni yow lañ ko sant nga war koo defee ni nga ko war a defee mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala di wax ni innani ana allah laa ilaha illa ana faabudni wa aqim alsalata li dikri suñu borom di fàttali ni man maay yàlla amul benn buur bu ñuy jaamoo jaamu ko di am njëriñ ñàkk gaa jaamu di lore ku dul man mu ne na taxawal julli te ngeen may fàttaliku ci biir julli googu wala li zikri gi bari na tamit ay cekkin waaye li ci ëpp solo mooy nanu taxawal julli ca nan ko war a taxawale mbokk ñu gis ne julli def gi nga koy def te xam ne ndigalu sunu borom subhanahu wa taala tax nga war koo bëgg def gi koy def nga sawar ci waaye boole kooku ragal yàlla ak wekki yàlla ak màggal yàlla sa waxtu wi nga jël war a ay minute yu néew jublu ci sa boroom nga war cee nu raw ni ngay góorgóorlu ci mboolem occupation yi xam ne yaa ngi ciy yaa ngi lan moo gën a rafet te li nga xam ne moom la suñu borom santaane muy julli nga def ko ci waxtoom def taxawaay boobu lu ko gën a amul rukkoo yi sujjuut ba ci toogaay yi ci diggante yi toogaay bi nga xam ne moom ngay sëlmale lu ko gën a toogaay boobu buy xool puy sob yar boobu mooy li gën a màgg te gën a rafet ci biir xoolal toogaay ak julli wóor ko ni mi ngi toog ci kanamu boromam jël xelam ak xolam yépp bàyyi ko boromam loolu lu gën a rafet ci ab yar waaye mbokk tamit ñuy bañ a fàtte ni naafi la julli la ne julli yépp ndax am na ñoo xam ne ñaari rakk yi naafi la wala yi ñuy def buñ koy def dañuy ndax ñaari rakk la waaye julli yépp a yem buñ ci mën a doon moo xam farata la moo xam naafi la la dañ ak xam ba mu mat sëkk kon mbokk yi ci tënk nañuy fàttaliku bu baax di julli julli bëgg yàlla ndax bëgg gi nga xam ne bëgg nañu ko waaye boole koog ragal yàlla boole koog wedd yàlla julli ci rafet njort ci sunu borom subhanahu wa taala waaye boole koog bég ndax daje gi ngay dajeeg sa borom subhanahu wa taala waaye jege gi ngay jegeeg sa borom subhanahu wa taala kon nanu góorgóorlu bu baax bàyyi xel li nga xam ne mooy julli ndax ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon nga wala mu jàq ni bilaal noddal ñu waajal julli bu ndax mooy li xam ci la ñuy ci la suñu xol di dale taala dañu xamal ni képp koo xam ne yaa ngi julli ko def ni ko war a defee dana la aar ci nu tere te it dana ci li nga ëllëg yomal xiyam buñ ko lijjantee mu jekk jaar yoon day nekk loo nga xam ne mooy tax ñu mën laa nangu say nañ jëf yu baax yépp ndax ginnaaw jullit am yu baax yu ñuy def ci ay sarax ci ay wax ju rafet ay maye ci ay jokk bokk te yooyu yépp ñi ngi koy fayoo gannaaw ba julli rafetee waaye loolee luñ ci def ak lu mu rafet ak luñ ci dépensé ci sunu alal ak luñ ci def ci sunu doole duñu ko fay ëllëg yow wax lu dul ne daa fekk julli yi rafet ba noppi jàpp ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla na nu xiir ci boppam ba bu ñuy julleeti suñu xel ak suñu xol ak suñu cër yëpp àndandoo di julli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu